asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di ziyaarewaat bu baax kii wax ci kàddu gi mooy Mamour Kassé dëkk kër Sëñ Muntaxa alxalifatul xam li tarixatil muridi di am ay mbir yu gàtt yu ma bëgg leeral muy ci mbirum soxna sa suñu naan Gabrielle Kane bi mu fi ñëwee bëri na ay polémique ñu naan sëñ waroon na ko recevoir wala sëñ waru ko recevoir sëñ bi bi mu jógee fa ñuy wax njaareem dafa ubbi comme ni mu ko daan defee woowut ku ñuy wax Gabriel Kane xamu ko bi mu ubbee tamit comme ni ko ñëpp yi defee amul sang amul pôle noonu la ko defee ki ñi nga xam ne ni dañoo war a ziyaare si ñëw ziyaare si moom mu ñëw bokkaale ci kenn ci njaboot gi tamit mu ànd ak ñoom biñ ñëwee tamit nekkul dafa yëkkati ab xaalis liquide bu ñuy wax soixante soixante sept millions par xime joxe ko ay bagages matériel am la indi bi mu ko indee tamit sëñ bi joxeloo ko fañ ko war a joxe muy ko ñuy wax soxna Maguette Gueye ma nga fële ci hôpitalu euh, hôpitalu jéemun yaakaar naa hôpital bi noonu la tudd soxna Maguette Gueye di ab taalibe ci kër gi kon bu loolu amee sëñ bi euh, ku ci nekk euh, ñëw di ko ziyaare moom mu ñëw ñu ne ko kii mooy Gabriel Kane xam am na droit ñaanal ko comme ni ko ñëpp di defee comme ni ñëpp di ñaanloo waaye lenn moo ñu ci xaw lënt mooy Gabriel xamuñu lu nekk ci ginnaawam mais ñun dëgg ndax homosexuel mën naa ne ci mën naa ne ci ginnaam wàllum LGBT mën nañ ko financé soxla image sëñ waaye loolu lépp ñun intéressé wuñu li ñu intéressé mooy def na acte acte bi mu def mooy ñëw na Touba ñëw na ci ka nga xam te ne nii moom moom Touba bi mu ñëwee tamit sëñ bi nekku ni da ko recevoir individuel dafa tombanteeg mu nekk bisub ziar bisub ziar la tombanteel bisub ziar boobu nag bi mu tombanteel boo gisee bu ko sëñ bi doon recevoir kon ñu demee nii mu demee bisub ziar la tombanteel sëñ bi boole ko ca ba sëñ sëñ bi ay kàddoom sax gis nga ko gudd ci kon nag ñiy wax nañ xoolaat li ñuy wax te bàyyi sëñ bi sëñ bi ñëpp la fi nekkal amul sang amul pôl te it ñu ngi leen di wax ni leen sëñ bi sëñ Tuubaa la sëñ bi du dàq kenn du jànd kenn sëñ bi xamul xamul gabiyel xamul mag